ahlan wa sahlan Oustaz ah, Ibrahim Thiam Thiam Thiam na def bari nañ si jàmm alhamdulillah waaw yi woy de dama ko woyoon yàgg na boobu maa ngi doon liir benn téere bu limaamu buuni defoon ah, buuni benn boroom xam-xam la yaakaar naa moo def samsul maarifil kubra benn téeram laa doon liir ma gis ci mu indi awqaatu ah, al maanaam ci jour wu nekk rek waxtu wu nekk rek maanaam bés bu nekk rek waxtu ijaaba bi ci bés bi waaw bi ma ko gisee nag ci laa ko woyoon yàgg na yaakaar naa quatre-vingt-quatorze la woon waaw sabaahu alifin mooy yaaraa idan yoo miy wër sirra ayaamil ijaabati sekkere bésu lijaaba yi waaw waaye nag sirra awqaatil ijaabati awqaati moo gën a kii daal mooy waxtug ijaaba yi naam yaa raima yaa raidan sirra awqaati li ijaabati fi ayaamiha waaw noonu lay gën a rafete au lieu que yaa raidan sirra ayaami l ijaabati fi awqaatiha yaa raidan sirra awqaati l ijaabati fi ayaamiha mooy waxtu yi sabaahu alifin alif mooy dimanche al ahad mooy alif al ahad mooy alif ci suba si la wa fii ba idduha ñaareelu bés bi mooy baa mooy lendi adduha mooy ci yor bila fala la fa sirru ijaaba bi nekk wala daa jiimi zawaali wala daa jiimi wala daa jiimi zawaalu eh, wala daa jiimi ni zawaalu eh, zawaalu bi mooy midi bi mooy ci bésu jiim bi mooy sulaasa mooy ñetteel bi ata hmm. waddaalu fi zuhuri wa mooy ñeenteelu bés bi fi zuhuri ci tisbaar bi la mooy sirru waxtil ijaabati bi wa bayna zuhurayhi fiiha diggante ñaari tisbaar yi mooy tàkkusaan ak tisbaar fiiha mooy juróomeelu fan ba mooy xamis summa baada salaatil asri ginnaaw julli tàkkusaan fii waawihi mooy ci juróom-benneelu fan moom mooy ajjuma wazaayu fil xumuri wazaayu mubtada wala fil xumuri mooy fi jant bi di xonqal noonu pour so mooy wazaayu mooy juróom-ñaareelu fan bi mooy samedi ok xëyaakumullah